dikkati naa lu waay gàtt dégg-dégg xam ne Léopold Sédar Senghor moo nekkoon président bu réewum Sénégal le soleil yéen kaay naan man moo taxit am amam moom Sénégal jënd na ko ci ay millions yu bëri ngir ñu bañ a ñàkk patrimoine Léopold Sédar Senghor libération yéen kaay naan man ko gàtt dégg-dégg dégg ni sunu doomu Sénégal ya daal ña ngay yegg ca Espagne waaye ña ngay faatu ca wax ya turbine yéen kaay naan kon déet yàggul dara barki Dembo Njaay guddi ba jàpp alxamis ab gaal boo xam ne mi ngi bàyyeekoo woon ca Gànjool doon dem nag fekki geneen gaal gu nekk ca digg géej ga ngir bëggoon yekkale ko ci gaal gu mag yéene bi naan maan gaal gu ndaw ga ci boppam dafa daal di këpp bari nag daal di cay réer ci saa si moom am na xale bu jigéen ndeysaan su ndaw soo xam ni teer na ñàkk bakkanam bari na ci ñoom ñu réer ay soxna ak i xale yu ndaw yoo xam ne ci gaal gu ndaw ga la ñu nekkoon libération yéene kaay naan suñu doom yaa ngi jeex ay nit yu bari daal di faatu yéene kaay bi naan yeneen ñaari gaal yoo xam ne soo boolee seen lim ñeenti téeméer fukk ak juróom ci xale di doomu Sénégal daal dinañ leen di gàttandu ca Maroc ca gaal ga mani la ñetti nit faatu ca daar daar am am ñu bari ñoo xam ne am nañ cay gaañu gaañu gaal gi nga xam ne ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru octobre bii lañ ko gatandu woon moom it secourir ko ca Daxla te mu bàyyeekoo woon ca Kafountine ñu bari yi daal dina ñuy faatu ca gaal googee gannaaw ba leen yóbboo l'hôpital juróom-ñett ca ña faatu moom basul la ñu dëkk Ibrahima Ndong meer bu basul ne gaal ga ci boppam dafa daw juróom benn fan ci géej gi amatul carburant ñu toog fukki fan ak ñeent amuñu ndox amuñu lu ñu dundee moo tax xale ya doon faatu benn par benn baabu seen consul général bu Sénégal ca Daxla ne gaal ga bàyyeekoo woon yaar yeg si dax la bokkut ak gaal gi nga xam ne ñaar fukki fan a ngi nii ñu koy wër nañu wër nag ca peggu Cap Vert Pierre Mbuub njiital réseau national bu quai de pêche yi ne lu toll ci junni ak juróomi téeméer ci nappkat saa si tembe ñi ngi ci kaso yi l'enquête naan konte moo ne day lañ ca xamul mooy ña nga xam ne yéegoon nañ ca gaal ga ba gaal suuxee ñu rëcc dañoo demaat seeni kër ne patt waxuñu fi mu ne nag ab l'enquête la ñu daal di ubbi ngir xam ñaata laani la ñoo ñàkk seen bakkan ci gaal googee le quotidien le quotidien naan alerte am na de direction de l'administration pénitentiaire daal moo ko daal di def daal di xamal Aïssata Tall Sall ministre de la justice ne ko moom Ousmane Sonko de yaram wi tàng na lool mi ngi ci 40 ci degré Ousmane Sonko yamu ca ma ngay wàccu réew mi ko di ñee naan kon Ousmane Sonko day jamono jii mani la daal di nay wopp lool te woppam gi ci boppam dafa daal di fuite nag l'observateur naan administration pénitentiaire ba day ma ngay xamal ministre de la justice naan kon Ousmane Sonko fi na ne dafa daal di wopp bay déliré nag di xëm ak di ximmi le témoin yéen kaay daal dinay am ci Ousmane Sonko woppam gii bàyyeekuwul ci nguurug Sénégal lu ci mën ci am ab lettre boo xam ne directeur bu administration pénitentiaire bi jébbal na ko ministre de la justice niki noonu document boo xam ni mi ngi bàyyeekoo ci l'hôpital bu principal bu Ndakaaru xamle na ni moom Ousmane Sonko ci boppam daal dinay wopp te wopp gi daal nay métti ba jéggi dayoo ñi ngi wax ne ma ngay tàmbalee déliré moom Ousmane Sonko ba naan nañ ko delloowaat kaso le témoin naan man procureur fi mu ne dafa ubbi ab l'enquête ngir xamle dëgg-dëgg lan moo waral nag document yi nga xam ne day xamle état de santé bu Ousmane Sonko te mu nekk loo xam ne warul woon feeñ ñu daal di koy gis ci réseaux sociaux yi moom procureur de la république ne daar daar ubbi nañ ci l'enquête te képp koo xam ne takkee nga ci coowal kayitu Ousmane Sonko yi dana metti ci yow wala tribune yéene kaay naan maan booba sëriñ Muntaxa ma xam xamle ni politique moom bugg ko dégg ci diwaanu Touba daar daar moom sëriñ Muntaxa nee na audience yi ngir candidat yi moom na dak xamle na ni jamono jiital na leneen lu wàllu politique moom xalif bi di sàkku nag ci politiciens ñu bàyyi ko ci dalu xelam ak jàmmam gën ci Sénégal yàlla na falu 24 heures yéen kaay naan maan waaye présidentielle dana am ca Touba sëriñ bi ne nangul naa leen ko waaye bu yi élection weesoo bu élection amati biir Touba tribune naan kon élection yoo xam ne nar naa métti ci gouvernement gi de mi ngi mel ni ci ñoom ku tëb dal cib xal dese na la geneen tëb fi mu ne nag askan wi ci boppam ñoo ngem bu fas yéene jaamaarloo ak gouvernement gu Sénégal te leen lebal ci coono ña ngi leen ko fas yéene fay nag ci élection présidentielle yi l'observateur naan man yu nar a métti ci Amadou Ba wala moom Amadou candidat Benno Bokk Yaakaar teem ci boppam dafa daal di xar ñaar l'exclusive yéene kaay naan man kaay ma xamal la nag jafe-jafey Amadou Ba ngir élection présidentielle bu ngeen nee mën na jàll premier tour it naxee mbaay la 25 février mani la premier tour lay doon niki 2000 ak 2012 ñaareelu wërngal mënta ñàkk ci mim réew mënu leen nag am coalition présidentielle boo xam ne premier ministre ba woon Mahammed Boun Abdallah jonn gàddaay na Aly Ngouille Ndiaye gàddaay na ngeen ni premier tour da ngeen di am ndam mënta nekk te bu weesoo ñooñee nga xam ne dañoo sempeeku dem seen yoon am na ci biir ñoo xam ne nag boobu mooy moytul day ngembul nañu Amadou te xamu ko xoolal ma Abdoulaye Daouda Diallo dañu koo forcé Amadou Ba te Cheikh Omar a na muy ñaqalee Amadou ci fekk Abdoulaye ndakaaru gi du Abdoulaye Diouf Sarr mooy ñaqal Amadou Ba Moustapha Diop ministre de l'industrie du mooy ñaqal Amadou Ba ca Louga te la daloon Karim Meïssa Wade jamonoy Abdoulaye Wade lii daal moo nar a dal Amadou Ba ndax nag même contexte yi la Sénégal gu compliqué ngir sénégalais yi ndaw yi nga xam ne amatuñ yaakaar ci réew mi ña ngay daw bar saafar yegg barzaq ñu jàppoon fi Sénégal mani la wan gannaaw Karim Meïssa Wade te loolee boo moytul nag mën naa dal Amadou Ba à tout moment tribune yéen kaay naan man en tout cas ca Sandiara ay conseiller ak i responsable bu parti bii di APR daal ñuy dëddu Serigne Gueye Diop xam nga Serigne gay Diop moom candidat la ci élection présidentielle yi te Aliou Ñing mi nga xam ne mooy premier adjoint daal dinay gàlloo yeneen conseiller yoo xam ne daal xam le ni ànduñu ak Serigne Gueye jóob ñoom APR la ñuy wéy di xeexal di xeexalit Amadou Ba coow li coow li mooy fasunu yéen a ñaqal benn yoon Serigne Gueye Diop Alpha Thiam moom it candidat la ci réewum Sénégal ci ci présidentielle yi daal dina sama bëgg-bëgg moom moo di Sénégal goo xam ne mooy moom boppam Sénégal goo xam ne sénégalais bu ne mën na caa gis boppam senegal goo xam ne kan wi daañu xam dëgg-dëgg ni kii Sénégal mooy Sénégal gi ñu am yaakaar moom Malick Gakou ci 24 heures yéen a kaay ne élection présidentielle yi day bu yàlla defoon na ne yegguma deuxième tour danaa lëkkoog ñëpp ba mu des Amadou Ba candidat opposition bi laay àndal rugum rugumeeg ñoom daal di dem ci yooyu la élection tribune yéen a kaay naan man boobu mairie bu Rufisque Arona ba fa am yéeme na lool moom directeur de la promotion de la bon gouvernance ne nañuy yoree maire bi daanaka scandale la téeméer ak juróom fukk ak benn ci million ñu ne carburant la ñaari téeméer juróom-ñeent fukk ak ñaar ci million ñu ne dépense diverse la ñaari téeméer ak fukk ak benn ci million ñu ne dañ koo jàppale ay nit fukk ak juróom-ñeent ci million ñu ne trésor la juróom benn fukk ak juróom-ñeent ci million ñu ne dañ koo jóbbu ci jumaa yeeg église yeeg ñoom seen ñaar fukk ak juróom benn ci million subvention a e. fanweer ak juróom benn ci million ñu ne innovation ma ne la lii lépp xaalis bi nañu leeral benn par benn fu mu dugg ndax nag coow li coow li moom moo di dugal sa gafa mi ngi ciy xeeñ aaroo na ne bonne gouvernance ci boppam moo amul ci mairie bu Rufisque le point yéen kaay xëy di sargal doomu Tëngéej Ismaïla Madior Fall bi nga xam ne diplomatie da cee mën mbapat ci terrain bi ba ci droit constitutionnel ministre d'État ñaari yoon garde des sceaux xeexal Sénégal fas ko yéene xeexal saa si tembe ca bitim réew l'évidence yéen kaay naan maan boobu port autonome bu Ndakaaru day ña nga fas yéene soobuwaat ci gréew goo xam sénégalais yi ndax crise boo xam ni ma nga gën a métti ci port autonome bu ndakaaru te lépp nee ñu dara waralu ko lu dul tëleeg munta gaas yi waxtu woowu yéen a kaay naan maan Abdoulaye Dieye ma nga dem lëkkaloo américain ngir jooyante aéroport international Blaise Diagne bu ndakaaru tribune naan maan fii ci Parcelles Assainies mouvement Allo Patrie bu Cheikh Ahmadou Bamba Diop ma nga taxawu ndongo ye nga xam ni foofee la bàyyeekoo woon doon fa jànge tout tànk ca unité 22 la ñu ne politique de la cité Cheikh Ahmadou Bamba Diop naa ko jëfee jàppale yi seen njàng ngir seen ëllëg ngir